Internautes sans limites TV, bienvenue dans votre émission les buzz du web alors comme promis les actualités les plus marquantes de la semaine moom laay indi rek di leen ko leeralal ba mu leer nañ tey nag ñu daal koy dooree ak li nga xamante ni moom moo di euh, mbirum coronavirus communiqué bi nga xamante ni euh, ministre de la santé et de l'action sociale daal di nañ koy euh, jébbal ginnaaw bi nga xamante ni am nañ seeni résultats sur 2102 tests réalisés 184 sont revenus 75 pour cent les cas positifs sont répartis comme suit 64 euh, cas contacts suivis par nos services aucun cas importé enregistré dans les différentes euh, portes d'entrée du pays 120 cas de la transmission communautaire euh, 166 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Trois décès ont été enregistrés ce jeudi 28 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Ñu jàpp rekk ni à ce jour 25 895 cas. ont été déclarés positifs, dont 21 561 guéris, 617 décédés et donc 3 716 sous traitement. loolu ministre bi yor wàllum wér-gi-yaram ci réewum Sénégal daati xëy xamal tey askan wi waaye rek tey ñu daati boole ak li nga xamante ni moom moo di naqar di boole di jël ab njaal rek di ko jaale toute la communauté musulmane bi nga xamante ni dañoo ñàkk ku sori ku fort ci ñun di Ahmed Iyane moom nag moom moo nekkoon auteur li nga xamante ni moom mooy introduction de la section arabe li nga xamante ni moom moo di ca école normale ginnaaw bi nga xamante ni nekkoon professeur ñëpp ràññee ko loolu mu jiite tamit li nga xamante ni moom moo di commission lunaire fii nii ci diwaanu Sénégal bu weeru koor mosaana jot ñëpp rek dañuy daal di xaar génn ki nga xamante ni moom moo di Iyane Thiam moom nag daal di nay génn àdduna tey ci ajjuma ji ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla xare ko àjjana fa nga xamante ni fa la jëm rek suñu borom teeru ko ca àjjana yi firdawsi ga daal di woyefal suuf uh, ci kawam actualité politique uh, lëkkaloo li nga xamante ni moom moo di uh, wàllum mbas mi boole kook li nga xamante ni moo di couvre-feu mu mel ni rek par non respect du couvre-feu dañ daal di jàpp ab ex ministre boo xamante ni rek ci gouvernement wu Ablaye Wade la bokkoon moom nag disparu des radars depuis quelques années mi ngi wuyoo ci turu Aminata Lô Dieng nekkoon ab ancienne ministre moom nag ci régime Abdoulaye Wade lañ ko daal apercevoir li ko waral nag bokk na ci dañ koo jàpp rek mu respecté wul li nga xamante ni moom mooy norme couvre-feu yi maanaam dafa génn ci heure boo xamante ni rek waru ko woon génn ñu daal di koy jàpp moom nag lu mu xamle rek nee na jàpp boobu li ko lal du lenn lu dul loo xamante nii rek politique kase la. ba tey rek ci wàllum mbas la ñuy daal di des ak yéen mu nekk terrible et émouvante histoire boo xamante ni ñetti membre bu bokk benn famille ñoom ñoo daal di génn àdduna rek li ko sooxee bokk na ci euh, waajur wu góor boo xamante ni daf doon maye doomam bu jigéen moom nag ba mu koy mayee dafa waxoon ni day organiser ab fête rek pour célébrer mariage ki nga xamante ni moom moo di doomam boobu ci la ñaati ci la ñaari sëram nag daal di bàyyeekoo fële nga xamante ni moom moo di diwaanu France daal di ñëw ci xew mel ni rek euh, seen mag ju góor jooju dafa amoon li nga xamante ni moom moo di coronavirus daa ci génn àdduna mu mel ni rek dafa daa ci wàll yenn ci ay sëram yooyu ñaar ñooñu ñoom tamit ñu tegaat ci ay fan rek ñoom tamit ñu daa ci génn àdduna mu nekk naqar ak boo xamante ni dafa dal ci kaw famille boobu à l'espace deux mois ñetti nit daa ci ñàkk seen bakkan ci feebar bi nga xamante ni moom moo di coronavirus dernière minute incendie au pavillon A de l'UCAD université Cheikh Anta Diop de Dakar ginnaaw bi nga xamante nii nag ab jaamaarloo bu métti moom moo fa amoon ci diggante waaye takk der yi ak étudiants yi nga ni ñoom ñoo fa nekk mu mel ni rek dañu daati sànni li nga xamante ni moom moo di ay tir de gaz ba mu daati dugg ci ay chambre yoo xamante ni dafa ko ravagé chambre 372 373 374 375 mu mel ni rek ay lakk yu métti moom moo fa am ginnaaw bi nga xamante ni waaye takk der yi dañ doon jaamaarloo ak étudiants ya nga xamante nii ñoom ñoo fa nekk actualité people li ci gën a fës bokk na ci divorce ki nga xamante ni moom moo di Omaro ak Ayo Balde mu mel ni rek defoon na à la une des journaux ci ñaari semaines yi nga xamante ni génn nañ ko waaye ba tey rek ay révélation mi ngi continuer di jip ci côté ki nga xamante ni moom moo di Ayo Balde naam bam ko takkee daf ko teral ak li nga xamante ni moom moo di oto ak këyitu kër pariru ol ak li nga xamante ni moom moo di xaalis bu takk moom Ayo Balde nag daa dinay jël lépp daa di koy jébbalaat ki nga xamante ni moom moo di Omaro ginnaaw bi nga xamante ni sax Omaro nee na lim ko na ko ci xol bu sedd guyu bu ko delloo sax ba ba muy sàngoo suuf du ko laalaat waaye Ayo Baldé comme que moom nee na bañ ko koy may dañ ko fësaloon ci internet bi bu koy delloowaat tamit daf koy daal di fësal ci internet bi delloo ko caabi oto ba këyitu kër gi nga xamante ni Omaro daal di na ko mayoon fa li nga xamante ni moom moo di ca Almadi 2 ca ginnaaw Sedima ba joxaat na ko nit pour mu dem rek jébbal ko ki nga xamante ni moom moo di Omaro ndaxte moom buñ fàtte benn yoon que ni moom toppewuloon Omaro li nga xamante ni moom moo di alal benn yoon daf ko bëggoon bëggoon sëy rek jaamu ci yàlla te yàlla tax waaye boobu ba léegi ba mu ci duggee amul jàmm mieux vaut que mu daal ci bépp lien boo xamante ni rek amoon na ko ak ki nga xamante ni moom moo di Omaro ba tey rek ci actualité mu nekk ay révélation yoo xamante ni mën naa ni kawteef sax lañ ko daal di tuddee ab bu siiw am doole fii nii ci réewum Sénégal la jabaram daal di bett fële nga xamante ni moom moo di ca kër Corom maanaam immeuble ya nga xamante ni moom moo nekkee fële na la ca cité kër góor gi ndax daf ko tàgg woon day dem benn son boo xamante ni ci wàllu mbas mi lay wax mu mel ni rek jabar ji daf ko daal di soupçonné woon lu yàgg que ni ah, da koy trompé waaye amuloon ay firnde ca noonu nag ca la demee ca kër coromba yàlla daati ko fay nattu nag mu daati fay fanaan ba mu fa fanaane nag jabar ji ba mu yeewoo gisu ko jubali ca studio ba ñu ni ko ñëw fi benn yoon moom nag ca la daati lijjante ba ñu jox ko numéro ak adresse su ndaw si nga xamante ni moom la nekkal ca apartement ba mu daati dem rek gaari otoom juste fa la fekkee Euh, waa ji waykat bi ci boppam di génn mu mel ni rek xeex ba daati mel ni tulleeg màlle di ko sànni ay dàll ak euh, traité ko de tous les noms moom musicien boobu nag daati nañuy joxe ay identité yoo xamante ni moom mooy firndeel ki mu doon dëggantaan maanaam dix indices yoo xamante ni rek moom mooy wane ki mu doon maanaam il a été mêlé à plusieurs reprises à des histoires de fesses avec une danseuse benn ci moom il aime les belles bagnoles il ne voyage qu'en première classe avion il dort le jour et fonctionne la nuit, il aime les belles montres et, le, et les parfums de classe. il a animé une soirée à la télévision en fin d'année il rêve d'avoir des jumeaux mu nekk fukki indice yoo xamante ni rek daati nañ koy fësal ci presse bi mu mel ni rek commentaire yi daati na jiip wulee ñaay ci côté ñi nga xamante ni ñoom ñoo di artistes yi heureux ménage à la belle Dieynaba Seydou Ba de la TFM mi nga xamante ni rek doon na amal ab mariage démb fële nga xamante ni moom moo di ca Parcelles Assainies moom nag mi ngi nekk fële nga xamante ni moom moo di ca diwaanu TFM yàgg fa loola di amal émission yu am solo li nga xamante ni moom moo di ah, yeewu leen libidoor ak li nga xamante ni moom moo di ah, sama kër moom Dieynaba Seydou Ba nag moom borom kër boobu nag mi ngi wuyoo ci turu Ibrahima Sankare moom la Dieynaba Seydou Ba daat yi sëyal démb ci alxamis ji ñu jàpp rek ni ginnaaw information yi nga xamante ni daati nañ koy fësal ci net bi moom nag ah, ñi ngi xamante ci ab voyage boo xamante ni rek moom Dieynaba Seydou Ba da ko doon def fële nga xamante ni moom moo di ca diwaanu Côte d'Ivoire di ko ñaanal sëy bu barkeel ak njaboot gu barkeel. internaute sans limite TV merci de nous avoir suivis euh, sur euh, sans limite TV di leen joxaate di daje semaine prochaine ak yeneen actualité d'ici la portez-vous bien et restez sur